tay fi la tay fi la yembal yamale ko fi tay it euh, commencé wu ko tay te du ko yamale tay def bax di daf koy mo andante ak site beeg yep ñew àndandoo accompagner ko torfakal ak ñi mu andal yep vraiment euh, ñu ñew tay ngir jappelé su fekke rek kenn mëna ci sanni kàddu ci ndax tay yef yi tamit ci yeen lañ ko jërëjëf alaykum mbokk yi eh, ma ngi tuddu paptine di responsable euh, environnemental de la commune de Sud et cadre de vie inondation bokk patch bo xamne ni dafa bokk sama bir département et boobu ba léegi aussi ñu Pas dox di tambali wax ba sinistré yi ak ci fi parce que bu ñuy bu taw lañ leen fekk seeni kër xol la situation dépassé catastrophe mënuñu ñu wona dëkk aussi ak ndox bi ñu mo waral tay ñu jenn leen ba indi leen fi presque ñu ngi si euh, au total 25 familles amna ñu nekk fi Oh, voilà am y nekk fii si école bi am nekk école bi mais base bi parce que moo gën a ëpp nit donc 27 25 famille donc euh, kon li nga indi ça tombe juste donc euh, le bar lu baax maa ngi jégalu da nga wax si léegi si benn ne yàlla dafa dogal ne bokkuñu sax diine mais lu baax amul diine lu baax lu baax la.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 am ay partenaires yéene ko commune bi kon donc aussi koy mu def li ngeen indi nii nag tey suñu day a renforcer rek kon donc ñun daal dañuy rafetlu geste bi doyen ñu ngi lay ñu ngi lay ñu lay ñaanal site bi dem fu fu gën a kawee ndaxte lii seen ne par parloo wutoo si amis yi wutoo parce que ñun xamoo ñu c'est la première fois sax sooy seet nga donc Karina